tar na tar goo xam ne ba fu mu toll dafa indi ak division jëmale ko ci biir ci biir njaboot yi noonu ko yéen kaay gi xëy fësale ndax dem nañu sax ba daanaka papa da ci xeex ak doom wala doom sax da ci mere bay ba ci diggante jëkkër ak jabar tax Abdou Khadir Sanogo di koo xam ne xam-xam màcc ci wàllu nekkin ak dundu doomu aadama euh, daal di koy càmbar mu ngi ci yéen kaay giir Walf Quotidien leneen tamit loo xam ne yéen kaay giir Walf Quotidien ko fësal te euh, euh, bi nga xam ne gars ko mu soxal atum nee nañu daal ci at mi ci année scolaire bi gis nañ ci lu ci toll ak junni ak ñaar téeméer xale yu jigéen yoo xam ne nii ëmb nañ ci mi ngi ci yéen a kaay gii wàllu côté Abdoulaye. Euh, yéen a kaay bi di l'info. kaay gii di l'info xëyee dellu soit Ousmane Sonko mi ñu ne euh, même bu fekkente ne fii ci senegal taxaw nañ tam ngir rey ko fi waaye fële ci Afrique moom maanaam fii ci diwaan Afrique. Mhm. Euh, taxaw na tembe kon ngir dekkiwaat ndax am na ci ay kuréel yu mag yoo xam ni ñu ngi bàyyeekoo ci réew yu bari ci diwaan Afrique ñoom boole nañ daal taxawal ab lañ ci jub rek mooy jàppale Ousmane Sonko delloo ko njukkal ci xeex bi nga xam ne ni moom la nekk di xeex ci biir réew mi mu ngi ci yéenekaay gii di L'info yéenekaay bi di yor yor gi yéenekaay gii di yor yoor dafa xëyee dellu si ci déclaration président Macky fu la ca euh, New York yéenekaay gi ne donte sax mu nga woon ci biir di wax waaye ci biti moom ñi di patriote yi fees nañu dellu kon ca euh, makkaanu mm-hmm. euh, Nations Unies ñëpp ñëpp rek ñu ngi ñaawlu taxawaayu njiitu réew Macky Sall miñ ne ab buur daal la jàppee boppam dafay buur di ba muy noonu la ko yéen a kaay gii di yor yor xëye Fesal Abdoulaye yéen a kaay bi di le peuple quotidien waaw yéen a kaay gii di le peuple xëyee des ci New York ak kàddu yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall yëkkati na ko ne daal ndéew mu njiitu réew Macky Sall da daanaka mu nekkoon avocat africain yéen a kaay gi moo xëy Fesal lu ni mel lam ci jublu woon rek lenn la mooy fexe ba askan Afrique yëpp mën a am ndox bu doy yéen a kaay gii di le peuple kon ci loolu la xëy dellu sor Abdoulaye réew mi quotidien génn gu fa yéen a kaay gii di réew mi ne fexe ba Afrique Euh, mën a am ci mën a jotee ci ndox mu sell noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ndax président Macky Sall dafa jàpp ne Afrique jamono ji dañoo maanaam dañoo dañoo mar mm-hmm. ndax boo xoolee lu ci toll ak ñaari ci ñetti téeméer ak fanweer ak million ci téeméer ñetti téeméer ak ñaar fukki million ci ay africain jamono ji amuñu ndox mu làpp muñ naan ba tax ma profité ci tribune boobu la daal sàkkoonal ci kilifa ñu jël ci ay matukaay noonu la ko yéen gii di réew mi xëy fësal dellu soit ci président Macky ak discours bu mujj bi nga xam ne ni def na ko fële ci ONU yéen kaay gi ne neexul bu la uh-huh. moom njiite réew Macky Sall am na ay kàddu yu daw yaram yoo xam yëkkati na ko fa di tàggatoog mboolem ay nattangoom mi ngi ci yéen gii di le quotidien yéen kaay bi di gii di l'observateur xëy dellu soit ci Amadou Ba mi ne Euh, dem moom Petit Palais moo nekkoon permanence waa APR mhm. am ndaje nag mu yaatu lañ fa doon amal lañ si jublu loolu mooy fexe taxawal ab programme boo xam ne lañ si jublu mooy Amadou Ba daal mën yëngu ci mën a wàcc si géew politique bi euh, nee nañ ko tey li ko dalee tey jii ci at euh, li ko dalee kon tey jii la fas yéene wàcc si wàcc wàcc si terrain politique bi mhm. dana dem fu la ci Tivaouane jaar Mewane laata woon moo dem fu la ci Pire waaye moom mi di Amadou Ba nee na daal euh, sàkku na daal ci gars yi nañ sol seen tànk dem gis ku ci mel ne Aliou Sarr Mary ba ci Mame Boye Diao su ko defee ñu daal waxtaan ak ñoom ñu daal dellu soit fi ci biir euh, ci dellu soit ci biir mm-hmm. coalition Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. mi ci yéen gi di l'Observateur Dakar Times lam ñu jukkil waaw bu dee yéen kaay gi Dakar Times dafa xëy dellu soit ci Amadou Ba mi nga xam dañ ko tàmbu def ku mu doon euh, candidat coalition Benno Bokk waaye dañu gis ne Amadou Ba fu mu toll nii waxu ah, ma ngeen a tekk mhm. mu mel ni daal euh, moom mi di Amadou Ba daal ca fa ca bureau yi daal la fas yéene amal politique te loolu bu yaakaar na mën na ci am ndax mu ngi nax boppam noonu la ko yéen a kaay gi Dakar Times xëy la yéen a kaay bi di Sud Quotidien yéen a kaay gi Sud Quotidien xëyee yi nga xam ne président Macky Sall wax na ko ne élection présidentielle yi la mu ci jublu mooy benn bokk yaakaar di jàll dès le premier tour waaye yéen kaay gi nag xëy na tey mm-hmm. bokk yaakaar ña ngay merelu Amadou Ba ndax dañ gis ne ba ñu ko fale ba léegi kenn mënta jot ci moom te rax ci tamit jéemul def dara rek ngir jéem waxtaan euh, ñi nga xam ne di responsable yi nekk ci base bile yéen kaay gi nag ci loolu la xëy dellusiwaat Abdoulaye. yéen kaay bii di révélation yéen kaay gi xëyee dellusiwaat ci bureau assemblée nationale bi nga xam warees na koy mën a wecci warees na koy mën a soppi. Mhm. ni ki fukki fan ci weeru octobre yenekaay gi nag loolu nag bu amee mooy wane ne yeewi ak taxaw taxaw nañ te tembe ngir fantasiro ndax nee nañu fukki député ak député ak ñeent yi nga xam ne Khalifa Sall am na ko. Euh, waaye yow askan dañ jël dogal kon fas yéene génn seen groupe parlementaire mhm. mi ngi ci yéene kaay gi di révélation euh, source a yéene kaay gi di source a xëy dellu soit ci euh, Karim Meïssa Wade mi ñu ne dafa ak dellu soitam daal fii ci biir réew mi mhm. fas porte porté couleur waa PDS xaw na jaaxal ñu bari ndax moom ku mi di Karim Meïssa Wade gars yi dañuy wax rek waaye boobu ba léegi deful signe de vie la mu mujjee wax daal mooy keroog ba nga xamee nii ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan fële ca Maroc su su fa yëngu woon mhm. foofu daal bind na fa ab tweet di jaale askanu Maroc waaye bu weesoo loolu amul kenn koo xam ne ni Karim Wade wax na la ci lu mu jamono ji foofu ca Qatar noonu la ko yéen a kaay giir suus a xëyee fësale yéen a kaay bi di enquête lam ñu enquête waaw a kaay mu ngi xamal ne waa PDS ñoom ña ngay waajal Eh, dellu sa kii di Karim Meïssa Wade ci biir réew mi la nee nag lañ ci jubul mooy fexe mbooloo mu bari ñëw teertu ko tatagal ko noonu la ko yéen kaay gii di l'enquête xëy fësal Abdoulaye yéen kaay bi di di 24 heures présidentielle 2024 docteur Abdourahmane Diouf ma ngay fësal ab programme am nee na programme bi nag mu ngi ko fas yéene tënk ci wàllu économie ci wàllu ndaw ñi ba ci wàllu doomu daara yi ne gi loolu la xëy fësal gars yi neexul ba neexul ah, moom mii di 24 heures ne candidat incontournable moo di kii di Abdourahmane Diouf mi ngi ci yéenekaay gi di 24 heures yéenekaay gi di antenne côté ji dafa xëy amal taxaw seetlu jëmale ko ci candidat yi nga xam ne ni lan moo war a doon seen force ak lan moo war a doon seen faiblesse euh, yéenekaay gi nag xëy dellu ci ku ci mel ni Khalifa Sall mi mu Thierno Alassane Sall ñoom est-ce que fa nga xam foo lañ teg seen gën daañu fa mën a yegg euh, ndaw yi ci mel ni Pape Djibril Fall Anta ndax ñoom fu mu toll nii yaakaar nañ ne am nañu mbagg yu dëgër yu mën a gardaaju réew mi noonu la ko yéen kaay gi xëy fisale wax nañ nag ci kanam Meïssa Wade miñ ne ab candidat la waaye Sénégalais yi ba tey gisuñu ko dégguñu ko noonu la ko yéen kaay gii di euh, lanteen xëyee fisale ma ngoog euh, turbine lam ñu jikk turbine xëyee dellusiwaat ci lakk gu metti gu metti xam ne am na fële ca marché bu Mbacké Euh, ak euh, lakk gu métti am fële ca Derklé fële nag ca Mbàkke lu sol gu métti kanti ñoo fa tàkk ba yoon dóom ñetti doomu adama ñàkk seen bakkan ci euh, benn gaz boo xam dafa tàkk foofee ca Derklé mu nekk nag musiba yoo xam ne Sénégal jot na ko dund si ñaari fan yi ma ngoog direct news waaye yéen a kaay gi direct news dafa xëyee dellu saat ci partiral gi nga xam ne nii jëwriñ yi dénk wàllu collectivité locale yi wala ñàkk jëmale ko ci tawatu liggéeykat yi nekk ci mairie yi ñu ngi seen fukkeelu plan d' action ak juróom benn waaye ba fii dafa ne Euh, jëmale ko sawatu liggéeykat yooyu léegi lépp kon mu ngi ci yéen kaay gi di direct news yéen kaay bi di stade lam ñëw jukkiir la a euh, match kon mu ngi fas yéene am bu a neex la noonu la ko yéen kaay gi stade xëy fësale Seydina Omar jafe-jafe ngir mu mën a taxaw mm-hmm. ndax ci diggante violence xeex report